asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tabaarakallahu ci ndigalu Serigne Babacar Sy Mouhamadulil Mansour ginnaaw bi nu ko jotee mu jaar ci rakkam ju tedd ji Serigne Babacar Sy Aziz yàlla def tey jii la ñu jàppoon ci dimaas bi mu nekk set setal bi nu woote woon fii ci xalxus tax na gis ngeen mbokki taalibe yëpp ñu ngi noonu tabaarakallahu nekkoon wuy si ci liggéeyub xalifa bi ñi ngi en direct ak jàmm TV ci liggéey bu am solo boobu nga xam ni ñi ngi ko nekkee fii ci Tiwaawan mbokk yi tabaarakallaahu way dawlu yi jàng ngeen ba tàyyi wala tawit dégg ngeen ba tàyyi kullu nafsin saa'iqatil mawti wala kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika sul jalaali wal ikraam tabaarakallaahu tax ñu ñëw wéttali si sunu nawle yi ci cet ak cellal gi nga xam ni tabaarakallaahu sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour woote na ko jaar ko ci rakkam ji sëriñ Babacar si Abdoul Aziz tax taalibe Tiijaan yëpp tabaarakallaahu tey ñëw nañu nii may waxee ak yéen 9 heures 10 minutes moo jot mais tabaarakallaahu gis ngeen xar foo sànni mbàtt mu takk yàlla def na sëg yi set na wecci am jàmmu TV yi di santaat yàlla di julli ci yonent bi sallallaahu alayhi di sant Cheikh Seydi Hadj Malick mi ñuy mi wut wutal yiw wi xam nga ni bu nee gàmm di leen wax seet seetal ndax ana saafatu mi ne iman seet ci ngëm yàlla la bokk te te boo seet seetalul doo mën a doo mën a dalal say gan moo tax nag bërëbu yàlla bii nga xam si ni yàlla rek fi ne yàlla rek fi safe sëñ Babacar si Abdal Aziz ci ndigalu magam ju baax ji sëñ Babacar si Mansour mu jox ku ndigal ñu bu defaraat sëg yi ba kilifa gu fi ñëw wala gan gu jugee fen ñëw di ziyaari sa mbokk bu ñuy fekk sëg yi leer. xam nga Tivaouane dafa am benn benn benn philosophe bi ñuy dund. mooy bu xas ndigal xasee ba fanano. ku ci ne da nga koy fanaanoo da ngay jàpp ne boo yeewoo fajar rek war ngaa daw dem ca ca ndigal loolu moo tax gis nga biñ diggante balaa 10 heures yàlla def na ne liggéey bi lu ci na ndax ci ndimbalu mag ñu ñi ak ndimbalu suñu mbokk yi nga ni ñoo ci yi buñ fi suulul sa maam suul nañ fi sa papa buñ fi suulul sa papa nañ fi sa bul dara ay jullit te fi tëdd boo ko war nga ni bëreet daw ñëw ñëw ñëw nemmeeku war nga ni daw ñëw jaamu si yàlla ndax li jaamu la waaw jaam yàlla ci biir jaamu yàlla yéen ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaw mbay mbale mi nag li ko def mooy ndigal parce que dañu wax ne jëfe ndigal moo gën wane xorma arab di wax ne alxayru kulluhu fi imtisaalil amr yiw yëpp mu ngi temm ci ndigal dañu am ndigal boo xamee mu ngi jogee ci xalifa bi di euh, sëriñ Babacar Sy Mansour jaar ci sunu sëriñ ñun ñëpp ci nga xam ne moom leen dénk daara ji di sëriñ kër si Abdou jaar ci kilifa yi jaar ci sëriñu daare yi moo waral ñun ñëpp ñi ñëw fi ndax Seydi Maxtaar bu njëkk bañ ko daan def mhm. booba ñun waa daare ji rek ñoo daan ñëw mais nag bu buñ demee ba ba médiatiser ko bëgg nañ yéene yiw mhm. parce que am na ñu bari la preuve mooy am na ñu bari ñoo xamante ni mhm. bisu tey bi ci la ñuy doog a gisaat seen seen bàmmeel parce que dañuy dafa am ñaar yu yoo xam ne dafa am te fokk ñu bàyyi ci xel mooy denc ak suul kilifa yi nag dañuy bëgg ku denc waaye bëgguñu ko suul mm-hmm. am na ñoo xam ne bu ñu xasee suul seen njaboot fàtte nañ ko ndax loo suul maxtaar soxlaatoo ko mm-hmm. mais loo xas denc da nga koy nemmeeku kilifa yi nag bëgg ñii nemmeeku ñii nii moo waral ñi koy médiatiser mm-hmm. bu ko defee bay ko waaye ku ci nekk xam nañ ne benn daara rek mën na bay lii lépp su ko defee di di di leen ñaanal di ñaanal ñëpp gaay yi nag ñëw fi ak volonté parce que ñun 7 heures fi lañu fekk waye té biñuy ñuy tamit fekk neen fi ñu bari amna ño xam biñu jullé fajar ba paré leen ñëw fim nekk ni da ngay gis né presque biir bi ni set né wécc ba ñing ñi wo ci biti ca mbaar ma su ko défé lool tamit volonté la di sant yalla ci lool bu baax waaw man lool mon nañ leen ci dikkel and ak cawarte lool nak parce que fi nga fi euh, la preuve moy gis nga li ñuy wax né tomber mo waral ay gaaf fi ñu fi ñu fi ñu dëgg nii sunu tànk di jéggalu tamit sax ni ñu fi dëggee sunu tànk ndax a darura tubixul maadura fii ñi kii nii mooy garanti xalxuus ñi ngi ñi ngi ngi jàkkaarloog sëriñ Mamor Binte Si ñi ji ñi gënoon ko siiwee ci mambër moom mi Seydi Muxtaar wax nañ ko émission yële passé rek ne moom mooy garanti xalxuus parce que moom bi muy ñëw fekki Seydil Haaji Maalik Si radiyallahu anhu mu ngi ko fekkoon Ndar bi mu ko fekkee ndar bi muy ñëw mu ngi sa Mawlaay Abdul Aziz Al Amin nee na mu ngi ànd ak euh, ñeent fukki naaru góor yëpp ay ngawar leen te moom bi muy ñëw ci Seydi El Hadji ñëpp siiwee nañ ne borom xam-xam la woon ñëpp siiwee woon ne amoon na mbooloo ñëpp tamit siiwee woon ne cellite kon mën nañ wax ne amoon na wilaaya léegi nag mu ñëw fekk Seydi Hadji Malick ne ko lenn rek moomu fi indi donte sama mbokk mooy nga kaala ma nga dem ma dem ni ko Mawlaay Abdul Aziz Al Amin nettali sëñ Mawlaaye sëriñ euh, euh, euh, maam Seydil Hadji Malick ne ko li nga bëgg kenn du ko defee noonu mu ne ko nu may def mu ne ko yeewil mbooloo mi yëpp mu yeewi mbooloo mi yëpp ba mu des benn xale bu ko doon yoreel satalam xale bi di génn Mawlaaye Abdoul Aziz Al Amin ne ko nee na nee na Seydil Hadji Malick ne ko nag na xale bi ñëwaat bi xale bi ñëwee mu téye ko fa maam Mor Binta pour moom fi li mu doon defloo xale bi Seydil Hadji Malick ko defloo mooy buy dem jàkka ja ŋàbbu jël na ko ŋàbbul si jaada bi buy dem tool yi na ko ŋàbbal satala bi ak ak sijaada bi ñi dem ñi xëy ba Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu war a ñibbi si euh, fii pour mission tafsir si alquran tiwaawoon yàlla dogal mu ànd ak Mamor Binte Si ñi xamoon Mamor Binte Si ca mbooloo maag yëpp ñëpp ku ci nekk xam nga nit ñi xamuñu ñëpp naan Mamor Binte Si de fi mu toll nii ak la mu amoon yëpp topp ku mel ni Seydi Hadji Malick di wax ji bari ba yàlla dogal ci gàttal mam ma Mamor Si feebar Seydi Maxtaar bi mu feebaree génn àdduna mu ngi gaañu mu ngi gaañu 1920 1920 la gaañu bi mu dégg nga bi mu gaañoo 1920 ci la ci Seydi Hadji Malick gaañu 1922 kon ñaari at lañ rawante waaye foofu li ma lay tënkal yow miy déglu maam maam Seydi Hadji maali bi mu ñëwee ci ñetti bëyit la ko defalee tarbiya ñetti bëyit boo demee ci diiwaanu maam Seydi Hadji Malick di nga ko fekk def na ko iyaaka iyaaka baxaral jaahi iyaaka maa ngi lay dénk yow Mamour Binta Sy iyaaka di la moytandikuloo baxaral jaahi géeju daraja ndax inna bihi wér na ni ki nekk ni ci géeju daraja hëlakan alkande xablal la ali lu njëkk ngay feey ba jot wurus wa mu ne ko nit ñi bari nañu waaye mu ne ko na moytu nit ñi fir nanga nga daw firaaraka comme ni ngay dawee usdul raa bi gaynde gol yaa amali yow sama mbébét am na lu mu bëggoon anil unaasi jéggil nit ji bi ne benn bis de samir wa jaanim na nga na teet ku la mustabihi képp koo xamante ni dafay lëntal ndax wannaasu nit ñi xaydun dañuy tënk li man amal ilaaha ku jublu yàlla yow Mamour Binta wala tamil bul jeng ilayhim jëm ci nit ñi ndax na di mu naa sa kuy toog nit ñi fii na fii fii wala hin da ngay nekk ci nani toy sa xel yëpp ci àdduna nga koy teg loolu la ko Seydil Hadji li deferee comme ñetti bayit yàlla dogal Mamour Binta si génn àdduna ñëpp naan ñëpp ñëpp naan maam Mor Binta Sy tey Seydi Hadji Malick lu mu war a wax ci moom Mawlaay Abdoul Aziz Al Amine nee na biñ koy sang Seydi Hadji Malick ne pat bañ koy jullee Seydi Hadji Malick ne ah Mor Binta Sy ndax ku xumboon baat la moom maam Seydi Hadji Malick ne ma yaakaaroon ne maa lay njëkk a jiitu ba nga donn ma rek kabbar nee na mag ñi di fat-fat ndax loolu kenn mënu ko xam ñu indi ko Seydi Hadji Malick dugal ko ci loxoom yu tedd yooyu fii këru dëggam gii ca la waxee nag mu ne tey jii nii bu yuuxu daganoon ci man bu ma yuuxu lu yàlla bind dina ma dégg waaye nag alhamdulillah bis ni ki tey képp ku fi yàlla dencati yàlla dina la rus yàlla dina la rus jéggal la ngir walliw bu mel ni maam Mor Si kon kon loolu mooy xa faral moo loolu moo lay xamal ne la kii mooy gaaranti xalxuus kon nag nga déggee ci ne nga déggee ci ne Seydi Moxtaar nga déggee ci ne bu fekkente ne garanti xalxuus njabootu maam Seydil Hadji Malick rek moo indi garantie boobu ku nekk ku am euh, ko génn àdduna indi fii kon Seydil Hadji Malick min baabi axra su ko defee mag ñëpp a ngi fi doomu xoolal doomu maam Babacar si radiyallahu anhu ñi ngi ko fi denc di di di di maam Habib si ñi ngi ko fi denc ponkal yëpp a ngi fi ba ci ba ci magu Seydil Hadji Malick maam Abdou Boli Fall gis nga mu ngi fii ñi denc ko fi ba ci maam maam Cheybatu Fall ñu ngi ko fi denc ñoom sëñ Aline Gueye fii lañ leen denc si boo xoolee nii suñ ginnaaw rek mm-hmm. ba ci sëñ niiru saar mm-hmm. mag ñëpp a ngi fi ñëpp a ngi fi pour pour pour wax la rek Seydi Maxtaar ne la ñëpp a ngi fi mm-hmm. ba ci ba ci ci ginnaaw maam Mor maam Mor Binte si boo xooleen tabax bi nekk ci ginnaaw noonu foofu la foofu la maam Mbàkke si nekk moom mi nga xamante ni moo jullee maam baaba Babacar si radiyallahu anhu maam Xoje si moo jullee Seydi El Hadji Malick si radiyallahu anhu waaye gis nga moom moo jullee sëriñ Babacar si radiyallahu anhu pour tënkal la rek mag ñëpp a ngi fi ñëpp ñoom sëñ Habib Sarr ñëpp a ngi fi ñëpp ngi fi. moom message bi message bi lenn la mooy mooy lu ñu am ci xorma Seydi Muxtaar lu ñu am ci xorma doyul parce que fii nii bu fekkente ne wax naa leen ne leen njabootu maam Seydi El Hadji moo indi garanti moo lay xamal ne la taalibe mën na am ci sëriñam ci barke sëriñam loo xamante ne sax sëriñam mënu ko am. te loolu dañ wax ne képp ku jaamu yàlla mooy tax nga yegg ci yàlla mooy tax nga dugg àjjana mhm. mais tamit yaru joxe xorma mooy tax nga yegg ci sunu borom su ko defee nuñ gën a mën a xormaalee mag ñi gën a xormaalante sunu biir ñun ndaw ñi nañ ko def parce que surtout gàmm gii di war a ñëw ndax loolu mooy waral ñi euh, sëriñ bi jàpp ñi ñi nañ bale tey parce que ñu bari bu ñu ñëwee tamit di dinañ nemmeeku ci seen njaboot ñi ñëw fekk nag fii set wecc am na ñoo xam ne Europe la ñuy jógee ñi tegtal leen ne leen fii leen denc sa wayjur wala sa mbokk su ko defee ñi ñëw fekk mu set loolu dina am lu mu def ci seen xol su ko defee di woowaat ñëpp tamit ci xorma ci liggéeyal xadara bi. mbokk ñu ngi nuyu di leen ziar di dal ci nuyoo bi alxalifa cheikh sëñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér lii di ndigal lu jóge ci moom waaye di mbégtee jaami yàlla yëpp macha allahu taala pour war a ñëw tey ci almeelu baqiya bu Seydi Hadji Malick yi nga xamante ni tey képp ku yeewoo Tiwaawan bu fi sa maam nekkul sa waajur a ngi fi wala sa mag wala sa rak wala mën naa ni Sénégal yëpp daanaka ku nekk am nga ko fi ku fi teew koo xamante ni wax dëgg yàlla tey bu sëñ bi joxee ndigal pour ñu ñëw set setal bay armeel yi set setal ko vraiment mbégte la pour ku nekk ma gis ni tamit Tiwaawan def nañ ko si njiitee bopp macha allahu taala bi ma ñëwee ci fajar fekk naa fii fees dell mel ne ku nekk daal def na ci yitte goo xamante ni yëfam la waaw muy lu am solo nag rawatina fii nga xamante ni ay muxaddam rek a tëdd ay kilifa rek a fi tëdd ay nitu yàlla pire ñoo fi tëdd Seydi Hadji Malick garanti ko ni fii moom garanti nañu képp ku fi ku fi tëral rek sa yaram na safara yàlla nañ ci yàlla boole ba tax na tey bu sëñ bi joxee ndigal ba tax muy góor di jigéen di mag di ndaw ku nekk la nga mën nga nekk te ñee ngay togg di indi ñee ngay saraxe di indi ñee ngay bay ñee ngay buddi ñee ngay roto ñee ngay peel macha allah taala ba almee li mel nii tey ci ndigalu xalifa bi macha lii lu rafet la lu jaadu la lu am maanaa la ndax lii dina wane nit gàmm gi ñuy dëgmal yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla may ñu fekke ak tal bu gan ñi ñëwee nañ xam ni waa Tivaouane sàgganuñ ci armeel yi ndax lii wane ne loo xamante ni vraiment dina tax am nañu taxawaay seen Tivaouane am nañu taxawaay mais tamit bay nañu xel armeel yi bu baax a baax a baax ndax buñ ko bàyyi woon nii tamit ba gan yi ñëw fekk ko nii nañ ni lii moom sàggante Tivaouane la ndax dëgg yàlla dina leer ni gan yaa ngi ñëw te buñ ñëwee fuñ jaar ñëw xol armée li xol ñu fi nuñ ko doxale ba tax na nak tay ñu ñëw fi ak mbekté gu reuy ma sha allah taala ziar nitu yàlla yi fi tëdd yëpp nak ñaan suñu soxla liggéey nga sha allah taala man amil sax fay nafsi lépp lu way def rek sa bobu ko def kon tay bu ñu ñewé fi def li ma sha allah taala mu lu rafet. di sante suñu sëriñ sëñ Babacar si Mansour sëñ Babacar si Abdou borom daay l'instigateur de de l'université de Tivaouane yal na ko yàlla fay waaye mënuñu suñu xel mënut a dem ci al amin al amin macha allah al amin macha allah yokk bii ngay gis ba bërëb bi xatul te bu fekkoon ne du yokk bi ba léegi bërëb bi am na nu mu demee waaye ci ndimbalam yërmandem ak prévoyance prévoyance am ak vision am ak bëgg teewaan ak xam àddinaam moo taxoon mu def ko te tey jii rëccuwuñ ko yal na ko fekk fu mu tëdd يالا دافال كو بارزخ وانا لكوك مامام يي وانا لكوك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جيرجف ني موم سوني مام ييب نغي في مو خادم يي اندون مام الحاج منصور نيغي ني سام بابا الحاج مباي سام بابا تاي نيغي في نينن نينن بالا جاو نينن ني باخ ييب ييب ييب تبارك الله نيغي في سي سوف نين باي سوني خيل سي ادنا تا خامني في رك لي نيغي يالا نيالا خير سي لو باخ آه، لي ماركي سي شاب الامين

muy xéwal te nitu yàlla du tànnantu du làmbatu te bi mu ko ñun ñi nga xam ne ñu ngi sur di fi ñëw di ziar ñi fi ne xam nañ li fi ne yàlla fayal ñu ko ci wàllu tarbiya tey ñu xam ne bu ñu ko wootee dañu amul mag moom téeméeri at amul ko am juróom fukki at ak juróom-ñaar fukki at yéen ñëpp da ngeen di laxasaa yu takk seen digg ñëw nekk ci liggéey bi lan sabab loolu ngeen dem ba ak benn âge teewul da ngeen di joxe seen addina eh, du dara du jëf jël mhm. te li nga dese ci kàttan lu mun ne ne nga jaamu ci yàlla mhm. yàlla da la koy fay mhm. boo amoon soixante-dix-huit ans te mën a yëngu ci dara sax nga yëngu ci looloo te mu jëm ci suñu borom jëm ci humanité bi yàlla la koy fay bénéfice la Euh, ndaw ñi li ma leen di jox message mooy nañ décomplexé gis naa ay xale yu yu jigéen yu nekk ci tali bi ci feera bi di bale mbedd mi ñu leen di fay par mois xale yu góor yi nañ dindi complexe seen bopp moytu ker yi keru ataaya ak baraada takkusaan euh, baraada baraada dix heures yi ku fi tardé moo la tardel mettez la mais à la pâte ñu liggéey suñu dëkk lépp baax Tivaouane yomb naa defar parce que defar na ba pare defar na ba pare mag ñi defar nañ ko mag ñi defar nañ ko. di Moustapha Wele doomu El Hadj Wele eh, ñëwoon rek ngir barkeelu ci li nga xam ni moom la kilifa yi woote te muy sunu mbiru bopp ñun ñëpp ndax fii wax dëgg yàlla mooy li may wax rek mooy kër gi nga xam ni amul litige foncier te kenn ku ne am nga fi cër. kon bu ñu wootee lu mel nii pour ñëw set setal ko ku ne war nga cee sawar ku ne war nga cee def sa kéemtalaay kàttan ci loo man waaw xëy na alhamdulilah rabbil alamin dañuy wax rek ni. xëy na la ca mag ña xamoon ñun dañ cee nàmp tuuti rek euh, dañuy wax ni maam Alfahima ma yorowele ak maam Fawad Wele foofu rek lay déparé du ma ko yéege ca kaw ca jógali ko cee Bakar ak Daraman ak waaye dama jëw rek ci maam Alfahima ma Wele mi nga xam ne moom mooy rakk ci maam Fawad Wele mi mi nga xam ne mooy taaw te tey mu njabootee góor gii nga xam ne tey guy gii ñuy wax ak guy Abdou Boli Fall mm-hmm. armeelam nekk nii ginnaw bam ko amé ak euh, Siri Matar Fall euh, am Fanta Nyang lu jitu lolu am nekonak ak suñu wax euh, soxna Fanta Niang Fanta am nit Seydil hajj Malik, kon ñom ñuy ay doomu al fahima Yoro Wele momu jur Abdourahmane Wele mi nga xamni armée la ma ngi ni mu jur ëmmat si wele mi teud fi te nekkon ci xabru Serigne Babacar si bobak léegi tay ay doomam nekk fa tawlo al fahima Yoro tay bi fi ne di di xalifa Alfahima Yoro Wele ak ay rakam Abdourahmane Wele mawdo Wele Amadou Wele mi ngeen xam yéen ñep dañuy doxal wax deug yàlla ndono li sha allah boba ak léegi nak wele wele ando nak ak Seydil Hadj malik jóge gaay bokkon na ci Abdoura Wele mi bokkon na ci Abdou bouli Fall mi ndax Seydil Hadj malik dafa nekkon stratège ba fep fu mu jaar rek dana fa bàyyi am Seydil Hadj malik non la ko jappé gaaya di ñew di ñew ba exit yawon indal ñum fi indalé moy ñi nga xamni tay ñom ñoom ñoo tëdd fii àndoon ak ci mission bi ba yalla mom leen fi alhamdullilah rabbil alamin njabot gi juddo fi euh, ñun sunu way jurdi di Ji Seydou welé nekkon fi ci keppaaru serigne Babacar mu mujj mu yabal ko luga mu wétali ko soxna Roqaye ndjay ba ñun man mi di wax ak yeen luga la juddo waye nak Tivaouane moy sama option mhm. machallah allah mo fi indi euh, ma ñew rek ngir barkelu comme ni ko ñëpp yi defee rek waaye ñu àndandoo maasaloo rek ñëpp nekk ay taalibe nag ndax Seydi Hadj Malick ay taalibe rek a fi nekk waaw Seydi Hadj dafa doon wax naan euh, kaay ma war la wan la yàlla wala sëgg naa war ma wan ma yàlla ne amul sama kër ñeen nañ àndandoo rek mbagg mbagg ñëpp nekk taalibe ñu wuti yàlla sunu borom fa tabarakallah ci ginnaaw loolu ñu taxaw ci guy guy yéeme comme ni nga ko waxee famille booli Baye Abdou booli Fall yi yëpp nekk fi donc ndax mën nga ñu indi ci rappel ci cosaan ci guy gi. ak guy gi nag ñun dañoo judd fekk ko fi. xëy na sunu liñ ci xam bariwul. waaye daal li ma wóor mooy ah du fi saxe noonu noonu noonu rek. mag ñi ko xam nag xam nañ sa kere bi ba képp ku dugg ci armeel yi di nga fi jaar. kër gi nak dafa am lo xamni li baxé wowo ko gis di symboliser mbir diko ko yàllaale loolu bokul ci ñun ba tax na guuy gi ak lu mu mëna mëna renfermer wu ko gis yalla rek la ñuy gis ñew ci guuy wala ñew ci poto wala ñew ci tabax di ca barkeelu ko rayo lan li la wala la ñun de loolu cosaanuñ ko baaxoo woon ko ndax ndax diine wu ko waaw li ñu wax dal moy dal guuy gaangi ni ah, sax na fi ci bop góor gi Abdou Boli Fall foofu daal la ñu yam a yem. mënu dugg dugg ci yeneen yo xamni dal daal ay jigeen ñu barké lu rek di wax la ban message ngay dink ndaw ñi fi ñu toll ci ak fi réew mi tollu jamono ci. alhamdullilah loolu am solo la. ndax euh, réew mi ñu ngi ci jexi jaxa perte des valeurs. perte de repère. amatuñ orientation. so waxee ñu ni valeur ya yaqku déedéet valeur ya yaqku doomu aadama yi ñoo yàqu ndax dafa am démission quelque part te maa ngi koy tàmbalee di ci kër yi ndax bu ñuy wax éducation aux valeurs ci biir kër lay tàmbalee dugg ci daara ji ndax ñu bëri dañuy jël seeni doom tey yóbbu ci école tubaab bi man leen école tubaab du yar école tubaab dafay instruire la tax lay def nit ba mu nite boo génnee kër ci daara ji nga koy fekk moo tax bu ñuy wax naan université yu mag yi méngale ko ak université Dakar ak yeneen université ay Michigan ak ay Sorbonne ma leen dangeen ngeen a juum université bu mag bi mooy université biy defar nit capital humain de qualité université boobu du fenn fudul daara ji daara ji bàyyiwul dara kon ñuy ñaan kilifa yi waajur yi nañu delloo waat la fi nekkoon démb mooy d'abord di yar seeni doom ci biir kër gi delloo siwaat la ñuy wax éducation aux valeur delloosiwaat li ñuy wax euh, communication parent enfant ci biir kër suñ ca noppee yóbbuwaat leen ci daara yi waaye nag dafa am daara ak daara mm-hmm. dafa am lu ñuy wax daara cosaan ak daara nooraan daara norani nak tay ñoo law ci biir senegal kenn xamul ñafay fay ñana kenn xamul ñu leen certifié ñana mhm. donc ñuy yalwaan lo xalé yi di leen maltraiter di leen exploiter mhm. xalé bo ci jël suba ba ngoon muy yalwaan ci mbedd mi ko ci laaj ban sar nga yamuni la xul wallaw ñaat at nga def ci dara yi mu la def na fi juroom at juroom benn at kon dara yooyu war nañ leen a seetaat réglementé leen mhm. bokku lak dara ciosan yi nga xam nak mom lañ am fi ci Tiwaawan am ko ci yenn dekk ku Touba am ko njaasan am ko cenaba am ko Jaamal am ko Ndar ndax logigul nit jóge jaamal nit jóge tuyaawat nit jóge Touba ñëw ndakaaru ni dafay jàng si alxuraan d'habitude dañ daan jëlee doom yi kay ndakaaru wala feneen yóbbu leen ci daara yooyu ñu jàngee ndax foofu la ñuy defaree nit nit ku nite li ñu bëgg ci réew mi suñ ko bëggee am mooy nañu dellawaat xale yi ci daara yu njàngalaat les bon valeurs les bon manières loo xam da nga ko jomb ba ñu la dénkee alalu mbooloo doo ko aakimoo ba boo génnee it doo def loo xam ne dañ la koy euh, doo def aw ñaawteef ndax daara ji bu defee ci yow ba noppi def nañ la nit dëgg dëgg dëgg def nañ la nit te ci loolu nag ci la ñu mën a amee développement Sénégal bi nga xam moom la ñu bëgg. tànkal nag loolu amul ah, réew mi dana xaw a naqatee defar lool. kon may woo ndaw ñi ci nañ delloo si waat seen xel kenn la ñu am mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sunu royuwaay képp ku bëgg a texe fii ëllëg texe texe àdduna texe àllaaxira royal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te Seydi El Hadji Malick dama ko wax barki démb ci benn post bu ma def ci Facebook bi ma leen benn message rek la amoon mooy jottali message yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la retransmission donc du message prophétique dans son orthodoxie Seydi El Hadji Malick loolu rek mooy message am ana nu ñuy def ba topp yoonu siraatal mustaqim ana nu ñuy def ba defaru ba baax ba ëllëg bu ñuy lay ak sunu borom sunu lay dana yomb kon ndaw ñi loolu rek laa leen ci loolu laa leen di invité xamal ni leen yëf yaa ngi fi nañu gëm seen bopp nañu xam liñu am surtout yu ndaw yi Tiwaawan nañu xam liñu am nañu xam ñi leen yàlla ku and ak ñom takko ak ñom sa affaire dina bax fi sa affaire dina bax ëlëk wa wara ñew rek ñew ndax yalla def na fii la ñu juddoo fii la fi lañu magge muy Tiwaawan amuñu nag nak dul Tiwaawan tabarakallah bu sëñ Babacar Si Mahamadul Mansour wote bis bu ci nga xamne ñun moy suñu kër gu ñun fuñu mëna am ci aduna yalla dox ni fi mañu gënal man bok fu ko yàlla mën a rek nañ ma indi fi ndax ki gën ci man ginaaw yalla ak yonti muy sama waajur fi la né kon tabarakallah man sama place defar na ko pare bima ñëwé ñëwee fa laa njëkkee fa laa jiitu kon sëñ bi bu woté wotul boobam ñun la ñëpp la wooteel ndax ñun fi lañ jëm kon tabarakallah day ñaan yalla rek yalla na yeex waye ñu bay ko xel xamné fi la buñ suñu kër aduna ba mat ba li ci war a woon war a nekk lépp nekk ci kon war nañu bàyyi xel ne kër gu mujj. gis nañu ay xéwal yu am solo nga indi ko di ko séddale eh, jaami yàlla yi loolu du ko waral. waaw loolu xaaj xaaj Ndiome Codé suñu la. Mhm. ci xadara bi suñu tarbiya la aussi ci xadara bi. li ñu am akas néew ñu bokk doomu aadama yi. moo tax ñu am indi ay teraanga jox ko njaboot ndax tàng na te am na njóobee ne njaay ñoo xam ne bu ñuy ñëw ndekki wuñu ndax dañoo teel a ñëw yàlla bàyyi ko fi yàlla yokk ay kàttam wax naa ko sànq sëñ Babacar Sy Mansour xam na ne ñu ngi koy ñaanal yàlla xam na ne jaama yàlla yi ñu ngi koy ñaanal yàlla mm-hmm. moom yëg na ko ndax tabaarakallaahu mission bi nga xam ne yenn na ko mm-hmm. dina ko àggale jàmm ak salaam nag te dina ànd ak a ak ba jumaa ji nga xam ne wax ko ko nee naa ko suñu góomu robaale bi yaa ko faj mu ne ko góom góomu robaale bi ñu amoon ñun njabootu Cheikh Sidaas Malick diine ji ko islam bi am ko sëñ Babacar Sy faj na ko góom wér na muy jumaa ji na ko àggale jàmm ak salaam wasalaamaaleykum wa rahmatullah tey nag ñu woote lu am solo muy mbale mbale sëgi at mu jot sëñ bi xalifa bi day jox rakkam ju jooju di sëriñ Babacar Sy Abdou bàyyi sëñ Moustapha sama sëriñ mu dajale taalibe yëpp ñu ñëw ci sëgi macha allah daal di bale lépp loo xam ne mbalit lay doon fii ci sëgi xalxuus lii nag muy woone ni muy muy wane ni képp kuy julli rek war ngaa bàyyi xel sëgi war ngaa bàyyi xel sa bis boo xam ni dinañ la denc fii te loo fa liggéeyul rek doo ko fa fekk te njaw tey ma gis ci waawan gépp bi sëñ bi lancé message bi boobu ba tey gis nga fi ñii indi fi ay ndox ñii indi fi ay barkeelu ñii indi fi teraanga bu nekk pour jox ko jaamu yàlla yi nga xam ne ca 6 heures du matin ba tey ñu ngi fi amul murit amul laayeen amul xaadir amul ñaseen. ba ci chrétien yi ba ci chrétien yi ñëpp ñëw noonu daal xam ni ñun ñëpp ay doomu aadama lan kon nag tey njaw man Gumba Anta Ndiaye doomu Tiwaawan taalibe sëñ Moustapha kontaan naa macha allah ci taxawaayu xadara kër Seydi Hadji Malick. waaw ginnaaw bi ñu santee di gërëm ñëpp di nuyu suñu xale sëñ Babacar Mansour di ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi di sante waat Tiwaawan yëpp yëpp yëpp yëpp ndaxte lii nii euh, sëñ bi wax ñu def ko ñu ñoo ko waroon wooteel suñu bopp ko sëñ bi wootee waa Tiwaawan yëpp yëg ni ñoom lañ ko wooteel moo tax waa Tivaouane ñëpp dajaloo ñëw ndax fii ku fi amul mbokk am nga fi xarit wala am nga fi koo xam ne sax soppoon nga ko donc euh, lii bu amee tey nga gis jeunes Tivaouane yi ñëpp génn wax Alaaji Maalik ba rek day daal di ñëwaat mu ne Tivaouane xamul amul ñëpp la ñàkk moo tax ñun fii Tivaouane bu fi nekkee bu ñu wootee rek ñëppay jugandoo tijaan yeeg murid yeeg laayaan yeeg catholique yi ñëppay defandoo ko ndaxte lépp ñun Tivaouane moo ñu gën a lépp moo waral loolu

ñoom aussi ñu nekk ay jàmbaar yu am solo am solo gis ni ñuy defee group nii am na group boo xam ñu nga kër yaa ay desi di ko nettoyé donc te loolu du tey la commencé du tey la commencé gis nga teraanga fi indi boo xoolee ci biir yëpp meew yee yëpp ñoo koy joxe kon ñoom aussi te Touba doon jógee yàggul dara moo nañu yoruñu seen xaalis jeex na mais lii dañ ko def événement si lii dañ ko def kon ñun Tiwaawan lii mooy sunu sunu lii mooy sunu chance lii la ñu nit ñi di ñeewee kon lii nañu fexe ba nañ ko consolider mu gën ko dëgëral kenn duñ ci jëlee ñun benn lanu amuñu ay murit amuñu ay amuñu ay leneen Tiwaawan am lu ñu woote ñu songandoo ko def ko mu jeex leneen nag bu jeexee mu jeex li gaa li gaa di waxee. affaire bi moom sant yàlla rek dañuy sant yàlla di julli Seydina Muhammad di ñaan yàlla gàmmu duñ jublu yàlla yóbbu ñu seet jàmm yàlla yàggal fi sëñ Babacar Sy Mansour sëñ Muntaxa yàggal fi kilifa diine yëpp nax lii suñu bopp lañ ko defal yaakaar naa ni kër Seex lañ dëkk waaye fii xaaj bi yëpp daanaka suñuy nijaayang fi suñuy magang fi suñuy papaang fi lu bari te yaakaar naa tamit lu baax moom doo ko gisee moom bul xaar kenn soñu la ci tamit di sant suñ grand yi ñu accompagner ci affaire yi ndax ku mel ne xaadim mbay mi yaakaar naa moo ñu wan yoon ay mbay njaay ndax dañoo bàyyi seen temps ñëw ci lépp xam nga accompagner ñu ji tey waruñu woon a jël parole sax di wax moom moo war a wax waaye moom exemple la monument la di ñaan yàlla suñ borom gën koo taxawal gën koo dëgëral ndax taalibe sëñ Touba sëñ Touba rek ko ñor te yaakaar naa ne moom munoo wax kii murit la munoon kii tijaan la te lépp benn la moo ngi ñëw di may tooñee wax murit yi yóbbu na lépp Touba ma ko ñamal meew mi <laughs> ndax xormet na wala xormetul waaw sant rek di leen sant yéen it waaw di leen sant tamit taxawaay bi rafet na ndax lii moom yaakaar naa ñun ñëpp suñu bopp lañ ko defar rek ñu ngi nuyu mbooloo mi ñëpp di jiital ci nuyoo bi nga xalifa Serigne Babacar Sy Mansour di ko ñaanal mu yàgg fi lool te bi mu àggale ko ak njabootu Seydi Aziz yëpp buñ ko nuyoo rek dugal nañ ñëpp parce que benn kilifa la am Tivaouane mook Touba ñooy am ak ak Ndiassane ak fii benn kilifa moo am muy Serigne ba Sy Mansour moo kilifa murit mooy kilifa Tijaan mooy kilifa Laayeen képp yow ci dëkk mooy sa kilifa loolu li koy firndeel mooy tey lii ñu woote fii tey bu ko politique woote woon ak keneen ku mën doon di ko fay nit ñi xaalis su bari déplacé leen te doo am li mu kon nangu kilifteef xam ne mooy kilifa dëkk bi moo tax mu woote ñëpp bàyyi seen i te def seen alal def seen temps def seen énergie te jox leen benn dërëm loolu kilifteef rek moo ko mën a am te loolu ñun dañ ko war a préserver muy sur kilifa diine yi am ñu lu dul ñoom am lu dul ñoom Sénégal ba amee li mu am tey ba ñëpp dina naw du dara lu dul suñu kilifa diine yi kon loolu te parce que ni ku ci nekk ci ñu war nga ci sa sawaar ñu préserver loolu loolu bu ko ñàkkee ñu ne ñëpp a yam ak ñu koy am ñooy gën ñëpp ñooy raw ñëpp mais bu ko ñàkkee ñu ñëpp a yam kon loolu ko sàmm ko ñaanal mu yàgg fii mission bi mu ko ak njabootu Seydi Hadji yëpp sant vraiment comme ni nga wax rek ñun amuñu lu dul Tivaouane amuñu lu dul sunu sunu sunu kilifa yi tey bu ñu wootee lu mel nii je pense que ni bëgg ñoo dimbali moo tax ñu mu woonu ci parce tey fii ku fi ñëw dala woon ni Tivaouane rek nga fiy jëlee parce que ñi tëdd fii tey boo ëllëgee amaana ñun ñi déwén ñeneen ak ñeneen dina fi tëdd kon loolu sant yàlla la sa énergie boo ko deful ci lu baax da nga koy def ci leneen kon sant nañ yàlla tey bi nga xam te ni ñoo nañ fii ñàkk fi tey def ci di sant xalifa bi nga xam moo ko woote di jaajëfal nag jeunesse Kër Saawa Ball yëpp moom dañ koy pirate ci suñu Xaadim Mbay rek li mu wax ndax euh, euh, sot ci ak def ci la euh, boo gisee sunuy tànk fii it mooy jëfee ndigal rek comme ni mu ko waxee léegi ndax nit amul lu dul kilifaam te Cheikh Sidil Mokhtar bu baax ma da doon wax ni bi mu toogee appel bi mu njëkk a wax mooy bëggatuma dégg kenn ku tudd ab tijaan wax ci lu dul noonu wala nga tudd ab murit wax ci lu dul noonu l'islam rek la wootee te it Cheikh ma si si Mourtada Mbacké si Mourtada Mbacké moom Serigne Touba da doon wax ni jullit bu nekk fa mu nekk ña fa nekk maanaam lépp lu ñuy jëf ci lu baax na ko àndandoo ak ñoom te it beneen bi ci des mooy armeel yi boo ci duggee sunuy maam a ngi ci sunuy nijaay a ngi ci sunuy bàjjan a ngi ci kon rek euh, kenn ku ci nekk ku fi amul maam rek am nga fi bàyyi am nga fi nijaay te it loolu kon loolu rek waroon naa tax kenn ko dagg sa yite wu ñëw ñëw ci armeel yi nii euh, beneen bi ci des ñaanal baax a baax sëriñ Babacar Si Mansour sunu borom guddal aw fanam ba jumaa ji nga sunu borom may ku wér ak kattan ba mu ubbi ko ci jàmm ah, wolof yi nag dañuy wax ni saatu mënut a wat boppam Sëñ Xaadim Mbay lii mu wax léegi ci Mbay Njaay ak nangam nangam lépp mu ngi ci moom mi la nekk kon dañ koy ñaanal moom it sunu borom dolli ko ay xéewal baax a baax waaye it dañ koy wax ni ko xelam na dalal xelam bu baax a baax ndax Sëriñ Tuubaa doon wax ni waq de xawaaji la si na daamu fi xidmati uhab lahu maaraamu moo kenn koo xam-xam ni ci liggéey Sëriñ Tuubaa ci la nekk kon yàlla na Sëriñ Tuubaa faj sa bu baax a baax ci barke Seexuna Ahmadu Xaadim saatu dafa mënta wut boppam motax muy gëreum ay nit waye lepp lu mu waxal nit rek ci mom mi la nek kon yalla yalla guddal so fan ba li ngay liggéey yene liggéeyal Serigne Touba xasida yi sunu borom may la wér ak katan ba nga ci la kaw jot ñu ngi sant mbolem kilifa ñu fi tew ñep mo xam talibé Serigne Touba yi mo xam talibé mam Alaaji malik yi mo xam laayeen yi xam khadri fu way mëna nek déplacer wu ñew fi ci liggéey bi yalla na nga dajé ngeureumal serigne bi yalla na nga dajé ngeureumal sunu borom ba kenn ku nek la nga ci sakku nga am ci la kaw su njort gi nga xam mom lañu degmalit sunu borom may ñu wër ak katan ba ñu def ci la kaw njort ndax euh, li ñuy wax ni ci ak def ci la guddi gam gi ñu koy magal ci seen buntu kër ñom ñi fa la ñuy yendu fanaan fa di jang alcorane ak qasida ba asaman set waaw ci guddi gam gi. kon nak euh, dañuy ñaan rek sunu borom doli xéewali bu baax baax ba kenn ku nekk li nga ci yene sunu borom may li wër ak katan ba nga def ci la kaw fu way mëna bayiko dal ba ñew fi suuf fofu jog yalla nako borom def aw yiw.

ñun ñëpp yàlla na yéex mais dañuy ñaan yàlla bu bis ba ñëwee ñu indi ñu fii kon bu fii amee nu mu mel ci nawet bi gàmm gi jot pèlerins yi communauté bi nit ñi fi am seen mbokk di gàmmu si di profiter ci gàmm gi di ñëw di ziar si war nañ defaraat béréb bi ba mu accessible fréquentable ci ci biir loolu yow mi ciy jàpp di ci tour sa ñak yow xamoo fan moo ci sa place kon da ngay ñëw bokk ci liggéey bi defar fépp rek ndax xamoo fu ci sa tëruwaay da ngay lalal bépp rek ndax xamoo fu ci tëddee muy nag loo xam ne lu am solo la parce que tey jii lii dinañu delloo si waat ci yàlla xam ni lii rek mooy dëgg bii mooy titre foncier bi wóor ci biir loolu ñu gis ni donc engagement boo xamante ni dafa nekk ci jeunesse Tivaouane waaw loolu nag bi ma loolu bi ma ñëwee man ci suba mhm. garé sama auto bi may wàcc première impression bima am moy lolu bima gisé foule bi ak heure bi jot. j'ai dit franchement li mom amna solo parce que gis naa engagement jeunesse bi engagement bo xamni waxuma daawul am de mais daawul mel nii jeunes yi mobiliser wu en masse té a ñew gaddu liguey bi c'est-à-dire que légui jeune tidiane yi mais doyna war vraiment yalla bu len cat jàpp. légui il suffit que kilifa gi joxe orientation rek ñepp jóg.

ci côté itam mënuñu la bayyi té duñu la ci côté municipalité mu melni donc euh, lépp bépp moyen bu ngeen am dépp génn ngeen wa bép mo deug la bép moyen xam nga ñun ñoy comme monsieur le maire Demba job ci moy ndey ji réewu dëkk bi lépp lu nit di def ci dëkk bi rek mom nga koy defal hmm. donc lépp lu ñuy def ci ay moyen muy camion yeeg lépp lim ci am indi nako pour que mu bu ñu defaree mbalit mi yëpp ñu mën ko jël dem tuuri ji ko parce que boo defaree it ca teg fi mbalit mi mu nekk ay immondices ay tas d'immondices ca mënoo ko déplacer mënoo ko yóbbu it day ngelaw li ñëwee day jaxasoowaat day mel ni liggéeyuñu dara kon loolu aussi am na solo donc moom it ñu koy ñaanal mu gudd fan ca di fekkee liggéey bi ci di ci am taxawaay bu am solo yéen it ñu ngi leen di remercier parce que à travers seen médium yi ñi baree baree bari ci la ñu jote mot d'ordre bi mm-hmm. am ngeen ci tuyaa bu ju rëy rëy rëy parce que yéen a ko yaatal ba nit ñi jot ci mën a jóg ñëw tey jii ci lii su ngeen fi nekkul woon xëy na moo d'ordre bi sëriñ bi jot ñii ci bi wax joxe ñii ci jot ñëpp duñ ci jot kon yéen seen jotale yéen it ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax